ah xëy rek sonn man kay su ma ko xamee woon nii sa duma toog ndax dangay togg ba pare sonn ci ba bëgg ree def nga ne teg sa taabal góorgóorlu di jaay nii rek xëy gisoo mburu xam nga rek te nit ñi moom soos bu amul mburu duñ ko jënd il faut ñu am ñu soog ko mën a jënd waaye nag nañ wàññi mburu mi tamit nañ wàññi farine bi déggoo ceeg boulangerie yi nit ñi mën a jënd dëkk bi dafa metti mënoo yokk mburu mi ba pare yokk farine ba pare ñoom ñu wàññi poids mburu bi loolu day xaw a metti ah, xam nga rek boo jabootee tamit ay kilo mburu ay 200 fanweer ak juróom yooyu day xaw a metti day métti ci ñu koy jënd métti ci ñun ñu koy jaay ndax suñu gisul mburu duñ mën a jaay beñe bi daal ñun bu ñu gisul mburu bi ci la ñuy nekk ñu ngi jënd si moom tay moom dox na <laughs> ñu ngi jóge fu nekk di jënd bu ñu gisul mburu tamit ñu ngi ci beñe bi rek jënd kilo mburu deux cent jënd benn beñe juróom moo la ko gënal a ah, mburu kat amul moo tax te yaa ngi war a ndékki amul ñoo fexe ba am mburu waaw mag saa si jàpp nag waaw ndax li metti na trop xam nga jaboot moom bu fekkee da ngaa jaboot sama ñeent doom juróomi doom nga bëgg a jël ñaari kilo mburu kilo deux cent u dikkee quatre cent ba pare nga bëgg a cee fere ba café ak meew ak suukar day metti Macky na ci baax a baax parce que xale yi dañoo jaboot tax élèves yi ñu xale yi mburu la nga xam élèves yi mburu la nga xam xamuñu fonde bi daanaka fonde bi moom par hasard rek lañ koy naan boo nekkee sa mbuur ba nga doon ba midi jot nga daal di a tax ñu jóg. moo tax Gindia jàkkatu fonde baa ngi nii xat te waaye xam nga xale yi jàng mënuñoo xaar fonde bi ndax dañuy heure bu ñuy dugg te heure bii nii fekkee yaa ngi lijjanti ndekki da ngay tardé sa njàng loolu moo tax. mburu dafa manqué ma ñëw di jëndi peewale nu ñuy def moom du yoon du du yoon waaw rek lekk yi ni mu seer rek doy na sëkk ab barke ñu waxati ñoom ñu dolli farim bi waruñu ko dolli waaw dañ ci war a wàññi wante waruñu ko dolli dëkk bi nu mel dafa métti xale yi dañuy war a jàngi duñu am saa mburu lu ñuy lekk nañ waxtaan ak nguur ba ñu juboo ñu bàyyi lu ñuy def ci tey bi suñ suñ doon yi lekkee ñu mburu bañ a lañ ndékki ak fon te xam nga loolu du yoon dëkk bi neexul da war a yombal affaire yi bañ a lañ ndékkee ak fonde xale yi bala boulanger dañoo war a wàññi mburu mi ñu wàññi wàkki Macky Sall wàññi farine bi ñu bàyyi seen grève te jaay mburu mooy dëgg te mooy yoon nit ñi jaay jàkkati ndékk ñu ni tey suñu ndékk soos yaay dara jaru ci loolu te yoolu loolu yoon loolu pertement la xam nga toog sa toog fa te jaay ko xam nga loolu pertement la xam nga yoon